yaay la ñuy jooy yaa yóbbu yi nelaw na nena la ci mon na bi wulu fi lu ñaala de momara ña la ilaha illallah subhanallah barame dina ñoom ñëpp àndandoo takandoo jaaji dem jalam jo ay bay bay nelaw na bay boy nelaw na mena la ci mon na bi wulu fi lu ñaala ilaha illallah subhanallah bërëm metti Ibrahima open press bi nga ñëw bul jaawale Fils de Balla mooy bëre de Ibrahima bul musa fàttali Fils de Balla góor a soog lay bëreel <laughs> waaye Ibrahima bul fàtte géej waaye dañoo am ndam lu rëy bërki démb Balla Gaye lancé roi des arènes dafa daan eey parcelle mu yëngu waaye géej waaye moo ngi yëngu Ibrahima Fils de Balla a ngi noonu ndeysaan ndeysaan gis nga ko mbaxa ramal bi la rango di def ndànk ndeysaan bu wàccee nga xam ni mbër wàcc na bu tuusee nga xam ni mbër tuus na lépp changé na ko moom Fils de Ndeysaan ma nga ma nga noonu yor ay saraxam <laughs> cey làmb làmb garaaw Ndeysaan gis nga yor na suukar yor ndox ci loxo booy may rek Ndeysaan nee na ko wàcceel gër bi Ibrahima jël rek taxawal avancé wu. Cheikh bu ndaw bi. porte bi nga duggee Ibrahima day wàcc de. Eh, waay làmb gi waay. làmb li gën a neex mbër am bis ay xaritam ay mbokkam ay doomu ndeyam. ay njëkk a ñaaleem ñëpp ñëw gunge ko lii mooy lamb. adversaire ba du perte pare dem. waaw waaw. barke Serigne Bamba. góor a soog ngeen. góor a soog am na problème tànk yi baaxul. prix rëpp. billaay wallaay. arbitre moo ko fi bàyyi. kombu nañ lépp. loolu a baax tànk. waaye yow yow sa baala di nga xool ay tànkam di xool tànk góor a soog di ku gën baax tànk. góor sax duñ moroomam billaay wallaay ci kaw Franc lañ jëm saa pour saa bi la barki alxuraanu karim yebul sa waay sa waay dañoo mbëkkante moom signature ba mu ruux ah. billaay ñëwewul day xof barki alxuraan ndeysaan mun ta ñàkk ndeysaan fils Ibrahima. noota Sary Xeer noota Roubé fils de Balla wàccal. ñoom man ñoo bu doole. mu ngi noonu moom doomu géejawaay bi. tey fils de moo war a laale Gora Sock le 14 août. ndaysaan ma nga noonu wàccee na verre bi ba mu yàgg mu yéegal ko ndaysaan sarax du mën a ñàkk ci làmb suukar la ak ndox Ibrahima làmb lépp tegtal la mënut a ñàkk Ibrahima ay jamaykee jamaykee da nga doon yooru waaye tey yàpp nga Fils de Balla Gora Sock le 14 août arène nationale ñaari mbër yi rek arbitre bi sifflé génn seen diggante ah. salaamaaleykum.

te jàpp naa ne warut a mun a taxawal Gora Sock quoi. Gora Sock na bu àddina prix mu duma ko daan. waaw loolu waxu mbër la mis nañu wax jooju mais Gora Sock nekkul kuy duma sa waay di ko daan kon Aziz yëpp ñaari yoon sax nda combat bi waa géej waa ñoo ko bëgg te moom tamit moo ñu ko gën a bëgg ndax combat bi am na fu ko mën a yóbbu. waaw lu sa waay laaj rek ñu fekk si ko si incha allah kee kay laay xalaat ba xam dina taxaw xeex ndax moom day naxante da woo si xeex nga yaakaar foofu na wàcc suuf jël la mais Aziz tamit du ngaaka te ñu ko yor tamit du ñu ngaaka ñu ngi siy xel bu baax a baax. dama lu mën a xew Gora Sock ci tànk yi la jëm. lu mën a xew si tànk yi la jëm maa la ko wax fii bindal téere teg lu mën a xew si tànk yi la jëm mais bu demee si tànk yi la mu fay fekk moo jar a wax te incha allah rabi ñu ngi koy ñaanal yàlla defal réussir na ci. mais ak tànk yi muy jël tànk yu mu yoon jël ak bii bokkul ça fait deux ndax moom kontaan nañ xam nañ fuñ jaar ndax xam naa li nekk moom bu ko appliqué suñ borom na ko defal ndam te di wax waa géej waa yëpp ñu ñaanal ko mu am ndam quoi ndax ndamam mooy suñu ndam lii ma gis daal xel dal na te incha allahu rabi yàggatul dara di nga ne Pape Thiam waxoon na ma ko bu soobee yàlla. waa sant Serigne Touba maa ngi ma amoon blessure mais suñu borom mu ngi may defal taw taw féex may ñaan kilifa diinal ay kilifa aada yi ñu gën ma yokkal ñaan bu baax a baax ma am tan ñëwaat si course bi bu soobee yàlla waaw sant Serigne Touba sant naa bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu yokk rek kontaan naa bu baax. ah Baye Djili. moo def. sant borom bi mu ñëw may. sant bu baax a baax. ah ndam rek. ndam kese. ndam yéen ah, ku liggéey fayee ko ñun liggéey nañ dañuy fayee ko. a soog liggéey. moom xamuñu lu mu ñun luñ liggéey lañ xam. Fils Balla li koy ñaanal ndam lu sedd gu ci kaw Gora Sock jël bu sedd rek bu amul benn werante. Gora Sock mu ngi ci état de forme loolu mooy yoon ñun bëgguñu daan ku nekkul ci forme bu ñuy daan dañuy daan ku ci forme ñëw def nder ñu jaam ko daan ko nder match bi tas. lan mooy seen problème diggante Guédiawaye ak Parcelles. non da nga naan ñoom mooy seen problème ak ñun parce que heure bu leen jàppee toroxal leen. <laughs> non mosoo ànd ko Parcelles. non mosuma bëre ak mbëru Parcelles. mosoo bëre ak mbëru <laughs> ko. lan moo tax nga ne saa yu ngeen bëree ñoom toroxal leen. balaa nga doon xam jox leen Modou Lo. Modou Lo. kan lañ koy jox ma daan ko léegi yàgg sax. booy sa bopp de booy. seen sarax lañ xam moo tax. <laughs> sarax nañ ko. góor nee na ci moom lay soqee ko. non loolu pour ñu xam si dara faaw dimanche jot dimanche jotagul. teel a julli <laughs> maanaam waxtu kenn du ko julli te heure bi jotul moo tax fa nekk julli waxtu te heure bi jotul. xeex ci arrangé ci na xam ni reer reer julli la wala julli reer bu ci mënti xew rek def ba ca lu mënti xew reer du day daanu incha yaay dagg vidéo yi di ko dugal TikTok rek. yow mi bàyyi sa ngay def. non non du ma de du ma de. war a fay gars. <laughs> dagg suñu vidéo di. non yéen a war a fay de. duñ la war ñu si wala ñun ñu def liggéey dëgg la mais tamit dagg vidéo di ko dugal naa mais su ma ko daggee gars yi nga dem seetaan YouTube boole TV su ma ko daggee gars yi nga dem seetaan YouTube loolu moo tax wax dëgg yàlla su ma ko daggee saa su ma daggee gars yi nga ko ko YouTube wala ñu laaj ci suite bi waaw ah. ah, loolu tamit ñoo yéen ñoo far rek ah TikTok fay war nga jox fa fay ko <laughs> ma. non daa war a fay. non daa war a fay moom ko ma wax dëgg yàlla. Ah. waaw. macha allah nga tudd. waaw. wala non maa la rek maa la rek maa la rek waaw maa lay jaajëfal maa lay jaar maa lay jaar maa lay ndeysaan Pythagore xaw ma lu mu sottee lii kay kenn xamul ba soow la gara kenn xamul lii lu mu doon rek làmb lépp tegtal la Gora Sock am na problème nag barki Cheikhul Khadim xale bu dooj lay bëreel xale bu waade barki Cheikh xale bu mën na géew nee na moom du xeex ak moom da koy duma ba pare daal Mbàkke Gora day soob du xeex du bëre booy bii mooy spectacle mooy wane boppam senegal moom danoo danoo yéex a xam booy bi ñu ngi ko commencé xam ci général Malika waaye Gora Sock dina dund lu gën a li général Malika dundoon. est-ce yow du da ngaa xamul Gora mooy kan. yow Cheikh bi borom suma tanta dama ne la fii sa balla Sénégal dañ koo war a xam lamb ji ku am ndey ku ma amul ndey mais boo yi fii seen talent yëpp mooy seen papa. moo leen ëpp caay-caay ci làmb dàq leen a bëre ëpp leen fi di geew te incha allah le quatorze août yàggatul loolu jeex na. dimanche la. am na solo am na solo.